donc pour affaire enseignement. Mhm. président Macky Sall dañ ci waxtaan ma wax ko sama point de vue te sama point de vue boobu changé wu ko man dama gëm ne encore une fois la politique moo tax ñu jël lu mel na secteur éducation qui est vital pour euh, construire li ñu naan capital humain capital humain mooy développer réew. mooy tëcc réew mu jëm kanam. Mhm. dama ko wax et je le maintiens France États-Unis dëkk yooyu yëpp. amuñu ñetti ministère yuy gérer éducation doo ko dispersé France dañu am ministère de l'éducation boo xam ne un million d'employés ba may gëj y presque huit ans neuf un million d'employés xam ne ñooñu gëm nañu seen seen seen seen euh, soixante quelques millions de français nga jël un million dédié leen à l'éducation c'est extrêmement message la message bu mhm. fort mhm. man li ma gëm mooy boo amee grand ministère de l'éducation si après mën nga ci am euh, benn département buy toppatoo euh, élémentaire. ak secondaire après buy toppatoo enseignement supérieur ak recherche. Hmm. ak buy toppatoo formation professionnel et technique. loolu yëpp boo ko boolee ci benn ce que j'appelle li may wax naan benn vision. Hmm. ñetti chameau wala ñetti fas mënuñu ko tirer kii dafa yéex kii dafa gaaw kii day jàdd donc da ngay boole lépp jox ko un excellent ministre de l'éducation. comme Amadou Makhtar Mbow ni mu fi nekkoon ministre de l'éducation on a eu de grands ministres de l'éducation si mes souvenirs sont corrects euh, bugguma wax euh, def erreur mhm. euh, le le vieux Kader Fall je crois qu'il a été ministre de l'éducation ou de la culture mais euh, plutôt de l'éducation mais on, on peut vérifier mais li ngay proposer yëpp def ko benn ministère un te en plus je l'ai dit de candidature je suis le seul nag mais déggal gaa gars yi gaajo day wax <laughs> no gaajo day wax ñu jël commencé ñoom di di ko xalam di ci wax ba pare di takk leen ba ba waaw non doo wax seeni wax euh, du sàcc mais emprunté <laughs> emprunté mais bu ñu emprunté nañ wax fan lañ ko emprunté mm-hmm. man maa ne situation Sénégal ni mu bindoo tey mm-hmm. ak continent bi yëpp d'ailleurs mm-hmm. man maa nar nekk le premier homme d'état ak le premier chef d'état buy jël éducation def ko ministère de souveraineté agriculture ministère de souveraineté santé ministère de souveraineté parce que ñetti piliers yooyu ñetti piliers yooyu ñooy fabriquer mhm. le capital humain d'un pays pour que nga mën a libérer l'énergie des Sénégalais ñu dem à l'assaut du développement maintenant en matière d'éducation on a plusieurs problèmes dans l'éducation parce que parfois quantité bi la ñuy jiital ci qualité ñun pourquoi ñun classe bañ nekkee ay euh, école primaire di mën bind ay rédaction yoo xam mën nañ ko publier au soleil dans les journaux zéro faute de français zéro faute de grammaire enseignants yi enseignants de l'époque bu ñu amee seen brevet wala am seen baccalauréat niveau bi c'était absolument extraordinaire mais léegi bu ñu sakkanalee ba pare moyens yi topp ci mm. moyens yi ci war a ànd dem dem euh, investissement bi defuñu ko mm-hmm. da am conséquence mooy nga am classe mm-hmm. yoo am ay soixante euh, élèves maître mënu leen encadrer ñoom ñëpp nga am ay abri provisoire gis nga li may reprocher à nos états mhm. et je le maintiens mooy depuis indépendance dañu jël yoon bu dëng yoon bu dëng boobu ba léegi nanguwuñ ko jubbanti mooy ku nekk ñu daggal la petit territoire jox la ko nga naan naa ci bâtir armée bâtir ci éducation bâtir ci éducation euh, euh, santé bâtir ku nekk di essayer côté loolu mooy li may wooye chevaucher solitaire pour un échec collectif au lieu que ñu booloo ànd réfléchir mais suñu maam yi mhm. xoolal bu ma toogee di waxtaan ak ay tubaab ñu may wax ay woy yéen africains yi ba tubaab yi ñëwee lañ leen civilisé ubbi fi école yooyu mais fan la ñu fàtte ay université Sankoré Mali y a plus de dix siècles africains yi ñun dañu xam éducation dañuy yàgg jàngale mhm. boo demee ba branché wu ci ñoom Cheikh Anta Diop li ñu doon wax depuis Égypte ancienne médecine philosophie euh, nu mu tëddee architecture physique lépp ci africain yi la commencé fii kenn mënu ko weddi. donc ñun dañuy yàgg am xam-xam. naw xam naw xam-xam ko ba pare mën ko jàngale mën ko transmettre. donc ñun suñu école yi. Mhm. problème bi mu am si mooy le caractère hybride de nos écoles. gis nga boo demee ci daara yi nga gis parfois enseignement bu brillant boo xam ne pédagogie bu am solo gos yi dañuy dañuy dañuy mën li ñuy def. jeunes sénégalais bu ñu leen yóbbu université du Caire. Mm. mais ñu nekk fa des cadre brillants am nekk parmi les meilleurs élèves xoolal Cheikh Ibrahima Niass li mu fi liggéey ci éducation ci formation yóbbu niveau ba nga xam moom ci boppam bu daan def ay discours màkk wala discours kii mm-hmm. naar yi dañuy jaaxle mm, kii mooy kan ak fan la jógee donc Sénégal loolu yàlla may nañu ko mais ñun suñu système éducatif bi mm-hmm. encombrement ay abri provisoire euh, internat jeex na dans système enseignants yi seen formation dafa dafa des léegi ñoom seen bopp. le niveau est trop bas. man j'ai entendu des enseignants ak tout le respect nag que j'ai pour le corps enseignant jàngale naa université Dakar. Mm -hmm. presque six ans. mais niveau général bi dafa baissé. wàññeeku na. correspond aussi ak niveau de délitement de notre société société bi yëpp moo nekk en crise mm. dans notre pays vraiment euh, il faut investir dans l'éducation il faut ñu jox leen ay moyens mais il faut aussi ñu déglu enseignants yi les états généraux yi ñuy def noonu ci li leen metti li leen mhm. naqari enseignant war na am ay moyens ci salaire yi ñu koy fay correction nu ñu koy traité ñun bu njëkk ba l'enseignant était mais sacré était respecté boo gisee sa maître ci école mu dox da ngay collé wu ci mur bi parce que c'est une institution sa maître boobu bu toogee gisul élève am deux jours trois day dem ba këram ko ñu ne ko dafa si bureau man suma me rappelle ay maître di ñëw teg seen loxo sama jë di xool ndax euh, ndax feebaru maak ay kii ak di conseil wala dem pharmacie jëndi garab ñëw jox ko sama parents yi parce que pas de voyage wala maire bi fi nekk type de relation yi la ñu perte donc suñu système éducatif boole ci nag l'explosion du privé ki ne pas aussi bien structuré bien organisé les gars yi dañuy jël benn kër rek defar ko ba mu jekk tudde ko institut de la formation de kii homologation qualité enseignement yi moi je respecte le privé président bu ñëwee mbir yi day changé de. complètement complètement alors mais nag surtout nag ak respect bi ci ànd pour ñoom. pour les enseignants et pour la formation man je me suis toujours dit ma koy fàtte. mooy le fait que euh, nga dem université Dakar. Mhm. dem faculté de lettres ay faculté de langue. bëgguma tudd benn langue mel dama koy critiquer nga fekk fa 3000 étudiants. Mhm. ñu inscrire foofu. Mhm. ñu orienté leen nga dem polytechnique. fi ñuy former ingénieurs yi nga fekk fa trente étudiants wala fekk fa ay cinquante étudiants mais loolu c'est un problème loolu mooy question orientation suñu formation ba keroog ba ma déggee RFI mille quatre cents personnes yi fi quitté y a même pas quatre jours ba atterrir les îles Canaries ñu ne am na ci benn ingénieur am na ci benn enseignant am na ci benn commerçant ak benn chômeur mais bañ ne ingénieur bi sama xol dafa metti parce que ça veut dire encore une fois que yaakaar dafa jeex. ci ñoom jeex na ah? alors.